bismillahi rahmaani rahim ñi ñëw ci darsu téere bi ñuy tuddee almaqaamaatu alxaririya euh, ci suñu darsu ñetteel ñu war koo tàmbale ila ma bihi min al ayaati wa maxasini Euh, dars yi weesu woon comme niñ ko xame mu ngi doon jàngale euh, ginnaaw bu mu musloo ci boromam yi nga xam ne ni muslu na ci moom yépp rawatina ci ñëw kaak làmmiñ mooy ñëw kaak fasaaxa muslu boromam ci ñëw kaak fasaaxa parce que léeg-léeg nit ki fasaaxa dina ko yóbbee mu dugg wala muy wax ba wax lu ëpp motax bokku na ci lim ñëk muslu borom mo musul ko ci xam nga buñu démé demee bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam day wax ne iman wal bada wa al bayan shu'batan min al nifaq li di kersa ak li di manam buñu waxe ayyu fofu lim ci nam rek moy new ay wax maanaam bañ a nekk koo xam ne da ngay nekk sar-sar sar koo xam ne day wax rek ku bari wax mu ne kersa ak noppi ay màndarga lañ wala ay bànqaas lañ ci gëm yàlla waaye lii di ñaaw jikko ak fasaaxa maanaam foofu lim ci nama mooy kasratul kalaami wax ju bari mu ne loolu day tegtale nifaaq ci bànqaasu nifaaq la la la bokk moo tax moom lim njëkk a muslu boroomam bokk na ci fasaaxa buñ ne nit ki dafa fasaaxa rek day tax fasaaxa googu yóbbu ko fu mu toll mu wax muy wax te wax jooju mën na koo yóbbu ba mu fu mu toll rek muy dàggi sante di werante waaye sax fasaaxa googu noonu wala wax ju bari jooju yóbbee ko ba léeg-léeg muy jël baatil di ko solal melokaanu dëgg moo tax muslu na boroomam sax ci li ñuy tuddee xawaayilu zaxrafa wala xawaayilu zaxrafa gàkk gàkku masar moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam comme ni ñu ko xamee ci ni mu ko jàngalee mu ne ku bari wax néew na luñ koy jéggal ay rëcc rëccam moo tax ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa ne képp koo xam ne ni sa wax dafa bëri sa njuumte day bari te képp koo xam ne ni ay njuumteem bari nañ rek ay bàkkaaram dañuy bëri te ku say bàkkaar bëri mu ne aljana moo gën a yee ci yow mu ne nag li yeey ci nit ki mooy walla képp koo xam ne da nga gëm yàlla daal boo waxee lu baax ba pare na nga noppi walla boo waxee boo mënee wax lu baax na nga ko wax waaye bu jeexee na nga noppi maanaam loolu dalay tegtale rek nit ki warta bëri wax ndaxte dafa am lu ci nekk ci lu bari comme ni mu ko waxee ci darsu bi weesu bari nañu dugg safara la leen dugal safara mooy seeni kàddu moo tax euh, muaad ibnu jabal radiallahu anhu dafa waxoon yonent bi saa sallam ne ko innaa la nu axadu bi ma natakallam mu ne yonent bi saa sallam ndax ñun li ñuy wax danañ ñu ko jàppee yonent ne ko sakalat ko ummuka mu ne am na ñoo xam ne hal yakubbu nnaasu fi nnaari ala ruusihim illaa xasaidu alsinatihim mu ne ay nit a ngi dugg safara lenn yóbbuwul leen fa lu dul seeni ngóobee fu làmmiñ mooy jël seen làmmiñ di wax rek ba mu jural leen ay bàkkaar kon bari nañu nek safara la len fa yob moy sen lamegni rek mo xam ci deri nit yi la mo xam wax jo xamanteni dañ ngay jël deug solol ko nen te loolu ñaarel buñ waxe nit ki dafa fasaha loolu dafa am bayan loolu dana koy yóbbee nit bokku na tim ci lim muslu moy nit ñi di jey diko tag tagg liñ ko wara jange, liñ ci wara a nit ñi di la di xababal ci tag gi tax nit yéem boppam ba ay jëfam daal di daanu maanaam dem ba yëg sa bopp boobaa kon la doon def yàlla doot yàlla dootul tax te boobaa sa jëf day màbb te loolu li la koy yóbbee léeg léegi mooy ñi nga xam ne dañ lay jay di la tagg ci sa teewaay bay wax lu ëpp moo tax yonent bi saa sallam doon wax ne laa tuturruuni kama atarati nasara isa bni mariam fa innama ana abdullahi wa rasulu mu ne bu leen di ma jay di ma tagg di xaabaabal ci tagg gi ndax te nit bu teewee nga koy tagg rek <clears throat> day mel day xaw niroog da nga koy jëy kon bu ci xaabaabal mukk mu ne bu leen xaabaabal ci tagg gi ngeen may tagg mel ni ku may jëy comme ni nga xam ne noonu la nasaraan yi doon def Aysa ibnu Maryam mu ne man bi yàlla dong la ak nekk ndawam kon loolu ñu war koo jàngee bu baax a baax ci li nga xamante ne nii jàngale na ko moom <clears throat> euh, al imaamul Hariri te suñ jubluwaay ci téere bi tamit ay firi ay baat luxa la waaye ay yeete tamit comme moom ni mu ko jubloo ci fànnab adab bi bokk na tim lim jàngale ñu war koo bàyyi xel ci dars bi weesu mooy bëgg giñ bëgg yonentam bi salallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam waaye bëgg gi nim lënkoo ak bëgg gi ñuy bëgg saxaabaam yi ridwanullahi alayhim ajmain moo tax yon moo tax yonente saa sallam doon wax ne allaha allaha fi ashabi laa tattaxiduhum garadan baadi fa man ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum wa abgadahum fa bi bugdiya abgadahum Aman آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله يشك أن يأخذه mu ne na ngeen def ndànk na ngeen moytu na ngeen ragal yàlla ci samay saxaaba na ngeen ragal yàlla ci samay saxaaba mu ne bu leen deen jàpp sama ginnaaw ñi ay cible maanaam bu ngeen xaar ba ma jógee fi ngeen jël saxaaba yooyu di jam mel ni ñoom ngeen bëgg wala ñoom ngeen bëgg jam mu ne képp bëgg gi mu leen bëgg dafa aju ci bëgg gi ma bëgg rek mooy li ngeen ma bëgg rek moo tax ngeen war a bëgg saxaaba yooyu noonu waaye képp ku leen bañ tamit xanaa bañ gim leen di bañ bañ gim ma bañ rek moo tax mu bañ leen kon bañ saxaaba yi tegtalewul lu dul bañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye bëgg saxaaba yi tegtalewul lu dul bëgg yonent bi sallallahu alayhi mu ne képp ku leen lor lor na ma man yonent bi sa alayhi waaye képp ku lor yonent bi sallallahu alayhi kooku de daa mel ni ku lor boromam ku lor yàlla wala iyaazu billah kon loolu ay sew sew la yoo xam ne ci darsu bu weesoon faaw ñu koy indi di ko di ko fàttali wante léegi nag ñi continuer ci darsu bi nga xam ne moom lañuy tàmbali ñu ngi toll woon ci fi muy waxee ne sos na maqaama bi mu nekk juróom fukki maqaama yoo xam ne nii dafa làq ay wax yoo xam ne nii waxi dëgg la waaye am na tamit ay kaf am na ay baat yu yomb am na ay baat jafe am na ay bayaan am na ay wax yu xoromu ci wàllu adab am na ay ceew-ceew tamit ci wàllu adab léegi nag mu ne ilaa ma ànd ak la nga xam ne yëpp wacaxtuha dronkee naa ko ko mooy rafatale naa ko ko bihi ci moom minal ayaati ci ay aaya wa maxaasinil kinaayaati ak ay rafeti leegaar bu ñu waxee leegaar mooy nga wax luy jublu ci leneen mooy ay dàkkantal yu rafet jamoo la ci kinaayatun wa rasaatuhu ma xam nga ilaa ilaa ma ànd ak la nga xam ne wachaxtuhaa ràngalee naa ko ko ràngal al mooy firi ràng comme ni nga ko xamee waaye rafetal rek la ci jublu wa rasaatuhu nag ma doronkee ko doronk mooy ma rafetalee ko ko ba tey la si jublu xam nga tey nga jën ndab li nga xamante ne nii dafa nekk përëm nga daal di koy rafetalee wurus wala xaalis masalan wa rasaatuhu ma doronkee ko fiyaa ci moom min al ci ay léeb al arabiyati yee ko jug arab mooy ma dugal ci ay léebi arab yu rafet wal lataayifi ak ay ceew-ceew al lataayif jamono ci al latifatu mooy al raqaiq al adabiyati yee ko jug adab ay ceew-ceew yi adab wal axaaji ak ay jame al naxwiyati yee ko jug naxwu wal fatawa ak ay ubbi al luxawiyati yee ko jug luxa wal rasaayili ak ay bataaxal al mubtakarati yee yi ñu fent wal xutabi ak ay xutba al muhabarati yee day ñu wer ñu waxee yu ñu wer mooy yu ñu rafetal wal maazi wal mawaazi ak ay waare al mubkiye yee way yay way jooyloo ay waaraate yuy jooyloo wala adahiki ak yu reelu almulhiya yay way soxlaal ay mbir yoo xam daf lay reeloo ba nga fàtte yi nga xam ne ni ci nga nekkoon mu dugal naa ci ay cew-cewi arab dugal naa ci ay jame axaaji jamono ci ux ji xam nga minal hija maanaam cosaan bi mu ngi jugee ci xija xija ji firi xel xam nga nit ki boo koy jam day mel da ngay natt am xelam moo tax arab yi di wax naan uxaajiika fi kada wa kada mooy maa ngi lay jam wala xujayyaaka maa ngi lay jamee nangam wala lakka uxaajiika bi maa fi yadi wala xujayyaaka bi maa fi yadi mooy li nekk ci sama loxo de maa ngi la koy jamee mooy boo ko xamee rek masalan danaa la jox nangam ak nangam loolu mooy uxjiya bi maanaa al algaaz mooy ay jamee alfatawa jamoo la ci alfatwa wala alfutiya dañuy wax ñaar yooyu yëpp al rasail jamoo la ci al risalatu comme niñ ko xamee alxutab jamoo la ci آه، الخطاب المواعظ جملتي المواعظة آه، الأضاحيك جملتي أضحوكة من مما عندك لنا مما تكينا تلنا خمنا أمليتو فتنا جميعا ومبولة على لسان أبي زيد نكنا تلامين أبي زيد السروجي كي كجوك سروج من أبو زيد مملا جيلكم نينك بخون منك بطل المقامات موي أكتر فملي أفلم لجيرك kii mooy acteur bi kii mooy nettali li acteur bi di def wa asnabtu ma wéer riwaayatahu nettali ba ilal xaaris jëm ci xaaris ibnu hammaamin waxoon nañ xaaris ibnu hammaamin lu muy teg albasri yi ko dëkk basra mu ne wamaa xasattu jubluhuma bil ixmaadi ci jàllantu gi nag fii ci moom mooy ci téere bi illaa tanchita qaari iihi lulul sawarloo way jàngam qaari iina la waroon doon waaye comme dafa nekk mudaaf ñu daal di xasaf noon gi mu ne jubluwuma ci jàllantu gi mooy jugee ci maqaama bi dem ci maqaama bi wala jugee ci waaraate dem ci lu lay reeloo jugee ci masalan ay fatawa dem ci leneen mu ne yooyu yëpp li ma ci jublu sawarloo ñi nga xam ne ñoo koy jàng waaye wa taksira sawaadi taalibihi ak bëril mbooloom way sàkkum sawaat bi maana al <coughs> mooy jëmm yi euh, <coughs> li ma ci jublu def ko ay maqaama wala jël thème bi bu beneen yoonee ma jël beneen thème yoon bi ma foo ci yoon bi ma rey ci yoon bi ma waaraate ci yoon bi ma def ci ay jëme yooyu yëpp pour nit ñi sawar ci nit ki bañ a yokkat nit ki bañ a tayal al ihmaad min alhamd alhamd ci wàllu gàncax mu ngi mel ni fukaaha lii di lii di firi ni mel ci doomu aadama noonu la alhamd mel ci euh, lii di gëlëm yi wala lii di rab yi ndaxte dafa am lu ñuy tuddee alxulla ak lu ñuy tuddee alhamdu alxulla bu ñëwee ñoom ñi lekk ko buñ ko lekkee ba pare léeg-léeg dañuy jàll dem lekk li nga xam ne mooy alhamdu nga xam ne dafay weex waaye day mel ni foyteef ci ñoom day mel ni fruit ci ñoom mu ne léegi nag buñ ko waxee loolu moo doon cosaan bi waaye léegi buñ ko waxee mooy jàllantu gi muy jàllantu mooy mu lekk ci bërëb bi ba pare dem lekkaat ci beneen bërëb mu mel ni moom tamit noonu lay def kon day ñëw ci maqaama bi indi fi lii beneen yoon mu indi fa leneen mu mel ni day jàllantu ci ay tem mu ne walam udiu dénkuma téere bi min al ashaari tukkee ci ay way al ajnabiyati yee koy jàmbur illaa bayteen lu dul ñaari way fas deyni yey ñaari way wéet ñaari way wéet mooy yoo ne bokkuñ ku leen bokkuñ ku leen taalif yoo xam ne bokkuñ ku leen taalif mu ne walam udiu dénkuma téere bi min al ashaari ci ay way al ajnabiyati yee ko jug jàmbur illa bayteen lu dul ñaari way fas deyni ñaari way wet mooy yoo xam ne nii ña leen taalif <coughs> dañoo wuute maanaam ñaari bayt yooyu duwut benn nit ko taalif waaye ñaari nit yu wuute lañ alfaddu mooy kenn faddee ni mooy ñaari kenn ñaar ñooñu kenn ki mooy alwawa ad dimashqi keneen ki mooy albuxtari mu ne assastu fondement na alayhima ci ñaari way yooya biniyatal maqaamaati tëggug maqaama alxulwaaniya mbay ko jug xulwaan buñ demee ci maqaama alxulwaaniya mooy maa ngi leen dugal foofa tëral leen foofa ñaari way yooya ñaar yooyu moom defuma ko wa axare ni ak yeneen ñaar taw amay ni yey seex bu ñu waxee seex yi foofu lim ci na nam mooy yoo xam ne ni ñaari way yoo xam ne ni ñoo bokk ku leen def mooy benn nit moo leen jur dammantuhuma làmbal naa leen ñoom ñor mooy maa ngi leen dugal xam nga damma mooy tàpp na mooy maa ngi leen dugal xawaatimal maqaamaati ca mujji maqaama alkarajiyeete yi ko koju karaj bu ñu demee ci almaqaama alkarajiya danañ fa fekk ñaari way yooyu nga xam ne ka leen defar ka leen bind ka leen sos mooy ibnu sukrata mu ne wama aada dalika lu dul ñeenti way yooyu fa xaatiri sama xalaat abu udrihi mooy bàyyi njànqam mooy bàyyi xéegam wa muqtadibi xulwihi mooy aji dagg lu neexam wa murrihi mooy aji dagg lu wexam mu ne ñeenti way yooyu rek daal moom laa dugal ci biir maqaama bi te defuma ko ñaari benn bi alwawa dimashqi moo ko def beneen bi euh, albuxtari moo ko def yeneen ñaari Euh, ibnu sukrata moo ko def lu dul loolu nag sama xalaat bi moo ko moo ko taalif mooy sama xalaat bi ci la génne bu ñu waxee abu yi bàyyi njàngxam masalan nit ki nga xam ne dafa takk soxna nga xam ne moo ko njëkk a takk sëyeg moom kooku la ñuy wax ne ah fulaan day abu uzriha mooy bàyyi njàngxam ci la ñuy jëlee ku mel ni mariam al azra nga xam ne xiig la euh, ndaxte mosta jote kenn comme abu udriha mooy bàyyi njànqam mooy yow mi njëkk seeg soxna si nga xam ne ndawam yaa ko dindi mooy mbir moo xam ne yaa ko njëkk a def rek yaa ko njëkk fent loolu la ci namm fii mu ne nag lu dul ñeenti way yooyu sama sama xalaat bi moo ko def bu neexee moom moo ko def bu wexee ti moom moo ko def mu ne haada nii la mbir mi demee maa tiraafi ànd ak samak reconnaître samak saxal samak nangu bi ann al badia xam nga haada al amru haada wala haada al amru da ngay wax ne haada nii la mbir mi demee بمعنى الامر مرمي هذا مغني مع اعترافي عندك سمك ركوناتر سمك نانغو سمك سخل بان البريعة نك بريع الزمان الهمذاني وغنى همذان مغنيك تي عراق العجم امنا نيو خنا مغنيك تي خراسان ولا لول يب تي عراق العجم لنكرون كرون بوله بو نجهك دا فا ياتو وون ديغنتي العراق آه، تركي آه، دكيو مل نونو تي ديغنتي بوبو نونو فلا عراق العجم نك تي خراسان kon foofu la nekk raximahu yàlla na yërëm ko allahu yàlla sabaqu gaayaatin mooy jiituwaa koonu lef mooy bu ñuy daw ci ay bayal moom mooy jël premier moom mooy jiitu gaayaat jamolo ci gaayatun bi maanaa ashau wa saaxibu ayatin mooy borom kaawteef yi boroom kéemaani jamolo ci ayatun wa anna al mutasaddiya naka aji gaar naka aji samp baadahu ca gannaawam li inchaa i maqaama ngir sos ab maqaama bu mën a doon wala uutiya donte joxef na ko balaaxata qudaama fasaxa qudaama nga xam ne nii moo doon qudaamatu nu jaafar mu nekkoon dëkkoon Bagdad ñu ko doon dàkkantale abul faraj nga xam ne nii ku fasaaxa la woon ba nit yi yéemoon ko ci ak fasaaxa mu nekkoon ab ab bindkat mu ne waajooju lu muy fasaaxa fasaaxa maanaam ko amoon fasaaxa ak euh, qudaama boobu sax boo ñëwee di taalif ab maqaama ginnaaw badiu zaman mu ne kooku day laa yaxtarifu du tànq illa min fudalati ndulul ci ndesitam yow day mel ni rek da ngaa ñëw fekk badiu zaman euh, badiu zaman naan ba pare ngay jël ci ndesitam di naan wala yasri du rañaan dalika almasra booba la rañaan waaye illa bi dalalati lulul ci tegtal bu badiu zaman mu ne jaar boobu badiu zaman jaar taalif ay maqaama mu ne yow boo ñëwee tamit ci yoonam rek ngay jaar moom moo la wan yoon bi mën nañu wax dulaala mën nañoo wax dilaala mën nañoo wax dalaala kon kooku mooy badiu zaman gis nga li mu wax ci moom ne badiu zaman mooy moo moo moo mooy ki jiit mooy moo jiituwaa koonu lef yi mooy ku ndaggeeg moom moom moo lay jël mooy jël premier ku ñëw ginnaawam tamit yow jaar waayam rek ngay jaar te ci ndesitam rek ngay tànk kon moom tànk na lépp waccal la fa aw ndesit waaye waxoon nañ ko ci ginnaaw ki ñuy tudde aljaaxiz mooy ki njëkk jàngale ci naaw bi ci façon bu rafet bi ci wàllu adab waxon nañ ko amru ibn bahr al-jahiz mom bokon na ci nim don jangale bi mi talif mu tambale اللهم انا نعوذ بك من فتنه القول كما نعوذ بك من فتنه العمل غيس نيو نيوم ياغ نيو مسلو سن بروم تي لامينو تي تي واخ فتنه واخ داختي واخ دا فا ام اي فتنه يو تي نيك داختي كوم نيوم نينكاي واخي كيب كو واخ ريك لاغا واخ بو باخي خمال ني دنا لا غاني comme ni mu ko leralé waaye danañ la jëw tamit mel ni dañuy lekk sa yàpp bi bu bonee moom rawatina far kon ñoom bokku na ci li ñuy muslu comme ni ko defé yi nii min shirrati lasani gis nga jaaxes fii muslu na ci làmmeñu wax waaye muslu na tamit ci ci fitnaay wax waaye muslu na tamit ci fitnaay jëf mu ne wa na'udhu bika min attakallufi lima la nuhsinu mooy tamit di toggoo loo xam ne ni ñun rafetal mënuñ koo rafetal maanaam di woote loo xam ne nekkut ci yow loo xamni mënoko mënoo ko waye nga koy nga koy jema rafetal manam fànn boo xam ne masalan dañ la wax ni la kay wax ci li te fekk yow lol maîtriser woko bu ci wax joxel ngant parce que bokku na ci <clears throat> nit li wala ak nitem moy buñ ko laaje ci lo xamne ni maîtriser woko mu dem woy kuko xam mu ñow wax ci lolo kon ñom bokkon na ci li nga xamne ni dañ ko daan moytu bu baax a baax motax xarit yi ci biir téré bi wax na ne ñu ngi ñaan borom bi mu tax mu defal ñu ñun ñi xam suñu dayo xam suñu suñu dayo fañ wara yam ñi yem fay yam kon ñom lool bokkon na ci seen ñaan bu baax kama bi bika min al ujbi bima no mu ne moom moom jaaxees mooy wax de mu ne yow yàlla ñu ngi lay muslu tamit li nga xam ne ni moom maîtriser nañ ko xam nañ ko ci fànn woo ñi bañ caa yëg suñ bopp te loolu bëri na lool ngay gis ku man dara as tuut rek ci ak fànn rawatina sax léegi ci wàllu xam-xam ci ndaw ñi waaye muy yëkkati boppam teg boppam foo xam ne dafa yéem boppam te boobaa lenn lu ci ixlaas dootu ci am dootul far sax far jëriñ parce que la taxoon a jox xam-xam mooy sellal dëgg boobaa day manqué mu ne li nga xam ne ni ñun maîtriser wuñ ko rafetaluñ ko mu ne loola yow yàlla yal nga ñu musal ba buñ jéema woote wootee woo ne loola mën nañ ko te fekk mënuñu ko parce que coono rek la ñuy jural ak gàcce waaye li nga xam ne yàlla dimbali nañu ba mën ko muy fànn guñ mën même bu dee métier loola tamit nañ ko rafetal ba nga xamante ni duñ ci jëlee benn bàkkaar mu muslu woon yàlla tamit min min asalaatati wal hadari mooy waxi caaxaan waaye muslu woon na yàlla tamit ci maanaam lottu ci wax ak gaw kon ñoom bokkoon na ci yii nga xam ne façon bii nga xam ne jaaxas moo ci njëkkoon moo ko daan jàngalee moo ko daan moo ko daan moo ko daan bindee ñoom ñi ñëw jël yoonam ku mel ni Badaru Zaman ak ku mel ni ak ku mel ni ku mel ni ku mel ni euh, gis nga boo xoolee euh, jaaxes bi muy bind fii nii moom dafa njëkk a tàmbali allahumma na naudu mooy santul moom fii nii nga gis ne kii di imaamul Hariri moom bi muy talif li mu njëkkee mooy allahumma inna ko kon nga gis benn différence bu mag ci diggante boobu noonu te bokk na ci li nga xamante ni daanañ ko wax yonent bi sallallahu alayhi di wax ne képp ku tàmbali am mbir te tàmbalee ko alhamdulilah ci benn riwaaya mu ne bismillah mu ne mbir moomu mbir mu mbir mu mbir mu matadi la mooy mbir mu manqué la kon kii mooy ki njëkk a taalif ci fànn boobu muy moo doon jàngale ci fànn boobu doon ci bind muy jaaxees bari o zaman daal di ko ciy roy ba mu nekk ba mu yegsi ci imaamul xadiis léegi nag mu ne walillahi ñeel na yàlla darul qaayili soowam aji wax ji manam daru fi bi maanaam khairu rek la ci nam manam yow mi wax day mom xariri moy wax ta kok mi wax moy ad ibn raqa' dafa indi ñaari way yo xam indi nako ñen ñi yenen ñaari way yi am nañu ko indi moy bo xole sharabi am nañu indi wa nabaha shawqi ba'da ma kana naiman hatufu duja mashghubatan bit tarannumi bakat shajwaha inda duha fatasajamat ilayha dumu al ayni min kulli masjamin mu door andi ne falaw qabla mabkaha bakaytu sababatan bi suda shafaytu sa qabla tanaddumi mu ne wa nabbaha yéena shawqi sama cofeel sama namel baada ma kaana gannaaw bu mu nekk woon man doon nelaw lan moo ko yee xatuufu mooy faalu nabbaha xatuufu duja woote waa koonu lëndëm yi mashrufatun muy ku ñu soppaloo bi tarannumi ci randantal mooy neexal baat rek mu ne dama doon nelaw am sabkatu guddi te picc rek la ci nam wala wala wala pitax walla petax boo xam ne nii ma ngay woote ca guddi ga nga xam ne dañ koo bëggloo ak sab mu ne bakkat jo jooy na sajwaa dayoom mooy jooy na ba fa jooyam mën a yem ànd ak duxaa fa yor yor fata saa jamat daal di yol ilaya jëm ci moom du mawul ay nii rong ñu bët bi min kulli mas jëmi tukkee ci bépp yolu mu door a wax nag ne falaw bakkaytu bu ma jooyoon xabla mabka njëkk ak jooyam sababatan ngir ak sopp bi soxda ci ndaw si ñuy wax soxda safaytu konoon danaa saafara naf sa bakkan bi xabla tana du mi walakin waaye bakkat jooy na xabli njëkk ma fa hayyeeja mu jeqi lii ñeel ma al bukaa jooy bukaa jooyame maanaam fa hayyeeja jeqi bukaa jooyame lii ñeel ma al bukaa jooy waaye mu ne moom daf maa njëkk jooy moo tax man samay jooy jooyam rek lañ topp fa qultu ma daal di wax ne alfadlu ngëneel li day lil mutaqaddimi ñeel na aji jiitu ji mu ne bu fekkoon ne man maa ko njëkkoon jooy lu kon man danaa mën a saafara sama bakkan bi njëkk may réccu waaye man samay jooy moom daa fekk ne daa topp jo daa topp ay jooyi pitax moom rek tant que pitax mi noppiwul man du ma mën a noppi mu ne nag alfadlu lil mutaqaddimi kon ngëneel lii mu ne ñeen ki nga xamante ni moo moo <clears throat> moom moo jiitu waaye loolu dafa am luñ ci luñ ci ràbbee lu bari loo xam ne lu lu jara leeral la moom imaamul xariri yi wax na bu baax ne ci biir maqaam bi fi mu wax ne sabaqu gaayatin maanaam jiituwaa koonu lef yi ne badiul zaman moo moo jiitu moy borom kawte fi wax ne ku ñëw ci ginaawam tamit mëno def lu mu def lulul ci ndesitam rek ngay jëlé ak fi mu wax ne wa in lam yudriku zaalewu shawaddali manam gàtt bu rag bu lap nan lay mëna ndagge nan lay mëna kurso nan lay mëna a gàtt bi nga xamne dafa reg ba pare sour nga xamne mom dara dalu ko soxul kon ñaar yu mënu mënuñoo ànd légui nak bu ñu xoolee kii nga xamanteni moy nii badiu zaman ci bir wax jii nii wax na ne al fadlu lil mutaqaddimi maanaam ngëneel li lil mutaqaddimi ñeel na ki jiitu léegi nag borom xam-xam dañuy leeral foofu bu baax tamit yenn saa yi di wax ne bi mu waxee ne sa sabaqu ayatin ak saaxibu ayatin mu ne ci biir li mu wax ne alfadlu lil mutaqaddimi maanaam daf ne innama fadluhu bi taqaddumi zamaani maanaam jiitu gi badiu zaman ngëneel lim am ci wàll jiitu mu ne taqaddumu zaman rek la maanaam jiitu ngëneel la waaye loolu benn sew-sew la boo xam ne borom xam-xam ñoo ko ci génne maanaam bi mu wax ne alfadlu lil mutaqaddimi mooy taqaddumu zamaani maanaam ngëneel li ñeel na ki jiitu waaye mu ne taqaddumu zaman li koy leeral mooy xarit yi wax na ci biir moo tax mu ne dafa am benn nit ñi bu ñuy waxtaan lu bari wala li ñuy leeral di wuute euh, maanaam ci fadlul mutaqaddimina wal mutaaxirin ndax ñi jiitu gën wala ñu mujj ñoo gën loolu borom xam am na lu ñu ci lu bari waaye xarit yi ci boppam am na fu mu leeralee ci biir téere bi ginnaaw bu mu suufeelee boppam wane ne xarir yi mooy ki jiitu moo tax boroom xam-xam yi am na ñu daan wax ne nan la ñuy jëlee ku mel ni badiu zaman di ko tëkkaleeg xarir yi mi nga xam ne mënta nekk badiu yowmin sax maanaam mosta nekk xam nga badiu mooy lu yéeme maanaam kéemtaanu jamono kii nag moom tuddewuñ ko sax badiu yowm nga bëgg koo nga bëgg koo tëkkaleeg badiu zaman te ñuy wax ne badiu zaman ci ñi koy ñiy wax ne moo jiitu di wax ne moom maqaamaam yépp da daan toog rek irtijaal ci kanamu nit yi am nekk loo xam ne dafa tëju woon di bind wala yu mel noonu Euh, loolu mooy ñi nga xam ne dañoo wax ne badaul zaman moo jiitu waaye ku am sa setantal xam nga ne maqaama xariri bi mu ñëwee maqaama badaul zaman bi fi bii yegg ak niñ ko ñàkkee dégg kenn déggeetul maqaama badaul zaman bi loolu loolu bokk na ci ngëneel yi nga xam ne yàlla defal na ko waaye xariri ginnaaw mum nangulee badaul zaman wax ne ci tànkam la roy tamit am na fu mu leeralee bu baax ne maanaam ki mujj mën naa am ngëneel ci kaw ku jiitu buñ demee ci biir am na fu muy waxee ne in yakunil as إن يكن الإسكندري قبلي فالطل قد يبدو أمام الوبل والفضل الواب لا للطل تبير مقام من إن يكن بنيك الإسكندري كدك إسكندر قبلي دي مجير تمت تبوب ممكن نمو آه، مقام بديع الزمان بلك بس بطل المقامات بوب نون وقلنا نجني آه، آه، كم كي نم دفع نم دفع كي نم جلي أبو زينم دفكم نيك بطل المقامات نون لك نون لحريري تمت جلي ون كينغ خمنتني موي ki nga xamantene moy abul fath def ko mu nek batul maqamat kon fofu loolu lay junj ne bu fekke ne ko juk iskandar gi dafa daf ma jitu tamit mu ne fa tallu qad yabdu moy banantal bi dana feñ amama amaamal wadli moy yàlla ji avant muy taw day wis wisal mu ne kon boba kooka manam wis wisal bi xam nga wabil taw waame bi moko moko moo ko wis wisal bi mo jitu waye taw waame bi deug deug mo upp njëriñ te mo gëna mag mu ne nak wal fadlu mo wax wax ju leer mu ne wal fadlu ngëneel li للوابل بوا نيل تاو وامي بي واي لا للطل نيلو تاو بيس بيسل بي كون في واخنا واخ جو لير ني موم دونت بدي الزمان موكو جيتو واي غنيل لي دغ دغ موم غنيل لي بدي الزمان ام غنيل لي جيتو جامون رن ريك لا واي دو غنيل الكاوي دو غنيل الخمخم لورو ما واخ جو لير ناني لو خمن ني حريري واخ نكو واخوت كو ولا بور دار واي داكو واخ ngir xam gi mu xam maqamam yi ak ngeneen li nga xam ne yàlla defal na ko parce que Euh, saxalal na ngëneel bu baax kii di badiu zaman ah moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ne fala yadummu kitaabu illa ahadu rajulayni faddeyni euh, imma jaahilun aw xaasilun te moom waxal na ko boobu mu ne ñaar rek ñooy compte téeréem bi kenn ku réer wala koo xam dafa iñaan te bu ñuy ñëwaatee ba tey donte jiitu na moom badiu zaman borom xam-xam yi dañuy wax ci wàllu jiitu wala ci wàllu mujj ban moo ci ëpp ngëneel duñ ci indi lu bëri pour gàttal rek Euh, li nga xam ne ni boroom xam-xam yi tudd nañ ko ci euh, ci wax koo xamante ne ni ñëw na ginnaaw gi te fekk yàlla may ko ngëneel yoo xam ne ni ki jiitu moom amu ko kon nekkul ne heure boo xam ne nit ki jiitu na rek moom ngëneel li dëgg moom moo yenu ngëneel yépp nit ki mën naa ñëw sa ginnaaw ba pare am ngëneel yoo xam ne yow mi jiitu amoo ko nit ki mën naa ñëw sa ginnaaw ba pare te am ngëneel yoo xam ne ni yow mi jiitu amoo ko moo tax am na benn boroom xam-xam buy wax euh, nu mu tuddati Hmm. wa inni wa in kuntu l axira zamaanuhu la aatin bi ma lam tastatiu l awailu ne man de donte ñëw naa mujj sax mu ne man dina indi loo xamante ne ci jamono ñi jiitu indiwuñ ko woon uh, ibnu ammar di wax ne ana ibnu ammarin la uxfi ala ahadin illa ala jahilin bi shamsi wal qamari in kaana axarini dahri fala ajabun fawaidul kutubi yustalxiqna fi turari ñi wax ne donte dañoo mujj jamono sax seen jamono daf leen a indi mujj jamono loolu du tegtale ne dañoo des ginnaaw waaye kii ñëw mujjeg jamono mën naa ñëwee loo xam ne nii sax ki jiitu am ko te loolu moo feeñ ci diggante limaam alxariri ak kii di badiu zaman rahmatullahi alayhima salaamaaleykum wa rahmatullah